simmeeku yére dàll pochette bopp ak nag leneen li nga xamante ne moo gën mooy gën a firndeel tabaski muy xarum tabaski mbee muy noonu boobu nag euh, dañuy daal di ñëw rek moo tax tey ñu njëkkee fii nga xamante mooy centre El Malick di centre commercial bu mag fii si Sandaga ngir rek fekk fi jàmbaar yi nga xamante ne ñoo fi nekk waaye jàmbaar yoo xam ne jafe-jafe yu tar yu métti la ñuy dund fii nga xamante ne moom mooy centre commercial El Malick ndax ki nga xamante ne moom moo ko moom di Mansour Cissé dafa teg ay ndëgg sërëx ñoom ñu jàpp ne injustice sa ndax fay payoor bi dafa chair loolu si pukus boo xamante ne rek toll na si ay un cinquante sur deux wala un cinquante sur sur sur deux cinquante mu doon euh, mbir moo xamante ne benn machine moo fa xaj ak benn nit amuñu sax fu ñu accueillir seen i client ngir satisfaire leen donc mu doon mbir moo xamante ne métti na mu jóge si trente mille bu ko yokk quarante mille demaat ba cinquante mille ñoom ñu na ba tëdd si suuf bañ a fay weer bii ñoom ñëpp bëgg a manko ngir waxtaan ak moom di si woon ak ñëpp tey nag ñoom la ñuy ñëw seet si ñu gën a leeral situation bi ak wàccaay tabaski bi ñu koy dundee léegi-léegi lay doon ravi de vous retrouver amis fidèles de Public SN ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak kontaante àndaat ak yéen euh, si euh, suñu différente plateforme YouTube Facebook Instagram TikTok ñu ngi ñëwaat ak yéen euh, si actualité yi nga xamante ne moom moo xew suñu Sénégal waaye tey dañoo def spécial waajal tabaski li nga xamante ne moom la la ñuy sénégalais di waajalee tabaski rawatina euh, jullit yi muy rek euh, fet bi ni muy demee muy wàllum ñaw bi wàllum sañse bi wàllum boppi yi wàllum xar yi tey nag ñu ñëw fii ba Sandaga fa seen fay seet si ay ndaw ay jeunes nga xamante ne dañuy euh, daan seen doole di liggéey waaye nag ñu nekk ay nit yoo xamante ne dañoo am doole lool si wàllum tabaski parce que ñoom dañuy taaral euh, nit ki nga xamante ne moom mooy feetu donc tey dañu ñëw waxtaan ak ñoom si euh, situation tabaski bi ren ah est-ce que mu ngi xeeñ neex wala xeeñul neex surtout ak gouvernement bu bees bi nii xam nga yow da siy baax ñu xool euh, sëñ bi ma lay nuyu di la dala jaam tur bi naka la. Baye Modou la Seck. Seck si ngi naar wala. waaw Seck farama de mu ngeen Seck si ngi naar loo ci wax rek. yëpp benn la. loo loo ci wax rek benn la. d'accord ñu nekk si préparation préparation tabaski mu des 20 jours. comme niñ ko xamé euh, ñu gis né ambiance bi démé wul comme num daan démé avant nit ñi di jokk di ñawlu euh, ñaw yi di ñëw tissu yi marché yi fess dara li fess ren mu melni dafa xawa a ban euh, taxaway wala ban jangal nga ci am. non du question géey sax parce que mënu ñu ko tuddé géey parce que comme li ngay wax ni nekul ne fépp lay xew parce que on peut pas être au four et au moulin yow mëno nek fee xam li xew suñu marché bi ñun fi franchement. ñu ngi koy sentir te ñu ngi koy dund comme ni ko suñu nawle di dundee rek ñun ñu ngi koy dundee noonu te wax dëgg yàlla ñu ciy gis suñu bopp nànk-nànk. ñaw yi daal ñu ngi commandé ay ñaw ñu ngi indi seen i tissu. waa ñaw yi moom mi ngi ñëw macha di ñaan yàlla mu xeeb dolli rek mais mi ngi ñëw macha allah non xam nga mënoo koo xayma parce que tailleur moom rawatina nga yor sa liggéey bopp mënoo xam lii fii la toll wala fee la toll da ngay def rek lu ñëw nga dékku ba keroog ngay mën a xam foo yem wala ba keroog ngay mën a daal parce que noonu la noonu la demee. yéen ban système ngeen di liggéeyee parce que lu ci bëri dañ naan tailleur yi dañuy engagé ay ñaw rek euh, xam nañ ne li ñuy jël duñ ko mën a jeexal à temps pour que livrer seeni i borom seen i tissu ñu ñu ñu liggéey wala sax ñu solu solu bu baax jour tabaski mais dañuy am yoo xam dañ koy encaissé retarde ko ba ñooñ duñu solu yéen est ce que tey yéen yéen yéen loolu yéen a si baay xel. non loolu moom foo dem wala ci domaine boo dem rek am na ñoo xam dañuy jubal am ñoo xam dañuy jàdd tey bu ñuy di gàmm ñoo xam dañuy raas dem du dëgg tey ñun mbokk man sama bopp laa mën a assumer ak ñi xam ne man nekk na ak ñoom ba xam leen mais ñun fii gisuma fi kenn koo xam ni di nga tàddeel ñaw wala di nga wax loo xam doo ko def wala dara ku ci nekk di nga yenu loo xam da nga koy attan waaw fii tey ni ma nekkal ñëpp xam naa leen te ci loolu laa leen xam ci loolu lañ mës a xamante ñun ñëpp ci wàllum yokk ba ngay dégg si réewum Sénégal ba gouvernement bi toogee ba tey yéen mbaa seen domaine euh, li ngeen ni jumtuwaay yi ngeen di utiliser mbaa dara yokk non déggaguñ li déggaguñu lenn loo xam ne yokku na ci wala wàññi nañ en tout cas réew mi moom ni ko ni ñu ko tàmbalee ak président Diomaye ñun kontaan nañ dal na seen xel dal na suñu xel vraiment parce que tamit cin bu ndaree neex ak su baxee xeeñ gis nañ ni mi ngi koy teg ci yoon daal waaw li mu commencé yàlla na ko eggalee noonu rek soobee yàlla ba am nga xar amaguñu xar nag mais xam naa léegi rek yàggatul bu soobee xar amul jafe na de daa mel ni waa jafe na mais yàlla moom dara jafewul ci ay mbiram mm-hmm. waaw ñun ay ndaw lañ te sawar nañ ñun dara jombuñu lu ne mën nañ ko am jërëjëf kontaan na yàlla voilà Momar ba tey ñu ngi si fii si El euh, di jël euh, jeunes yi nga xamante ne ñu ngi fi euh, man li ma gën a mooy ay ndaw kese ñoo fi ñoo fi ëpp di liggéey di daan seen doole sàccuñu fenn ñu doxuñu si daray caaxaan moo tax ñu ñëwaat fii si beneen place bi nga xamante ne mu ngi si biir El Malick fekk fi benn ndaw ñu lay nuyu di la dalal. mbokki internet yi maa ngi leen siyaare di ndokkeel baax a baax. parce que bo ngi gisee ñi tok fi ni ci waxtaan ak yéen ndax am ay problème yoo xamanteni ñu fi bëgg yéwo iya, ñen yeewoo. xéttu problème. ndaxte ku ne xamné na dëkk fu mu tollu ak réew nu mu tollu réew mu ay ndaw xalé yu tuuti bëgg seen métier bëgg seen liggéey dugguñu si gaal yi di mënu fenn respecté seen liggéey di xey heure di wacc heure kon nak bo démé tay ba ruq yi nii nga nan leen ay 50000 ak ay 60000 xam nga ne li jaru ko léegi nag ay xale yu tuuti. carré carré la ay 2 3 yooyu ko doon wala 2 sur 4 mètres moom lañ leen di jël di leen fayoo ay 50 mille par mois la wala. par mois te tamit lu ñu si gën a métti tamit yow tey da ngay toog euh, boo fay euh, la 15 tey yaa ngi joxe caution mois caution 3 nga joxe ko tey ñu ne la léegi boo fayee la 20 soo fayee duñ ko jël léegi aywa am sa caution 3 mois boobu noonu. vingt boo ko fayee doo ko jël léegi da ngay. indil la kayit boo xamante ni ay kii lay doon pour nga fay trente mille trente lu yokkee ko maanaam amande lay doon. voilà alamande lay doon quoi boo xamante ni sa caution mi sa caution mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi tëdd. léegi loolu ñoom fan lañ ko teg ba pare ñoom ñu war a ndaw ñi war a ndaw ñi pour ndaw ñi am leneen toog ci réew mi pour liggéey mais pourquoi ñoom ñiy buntu xatal ndaw yi di leen teg lu métti di leen teg lu tar loo xamante ni mënoo comprendre. ndax ñun ñun tay ñun suñ kilifa yi ñun tay ñun ñu nga xamante ni ñoom ñoo ñuy war a jàppale di ñuy luwee seen centre ñu siy liggéey kon ñooñu war nañee mën a jàppale mais waruñoo teg bët war ñaa mën a teg saa si ñu xam ne ñun ñi ay xale leen ay ndaw leen nekk si yoon sàcc ñu demuñu fenn suñu place lañu xëy bu ñu xëyee wàcc dem suñu kër bëgguñu dara loo xamante ni nag mooy jur yeey ay firnaak ay ay yoonal ndax mag bu nekkee ay xale sax yow nga dañuy yokk ñu woola na la ah ñun de lu kon danañ toog waxtaan nga ne nga ne waxtaanuma ak kenn xanaa yow ay ndaw boo nekk ak ñoom nga jox leen cër sax jox leen respect war ngaa mën toog ñoom waxtaan ak ñoom si dal ak si si teg ak si tey mais tamit nga ñëw bëgg a dox seen kaw bëgg leen jaay doole ba léegi nii jafe-jafe yi la ñu dund weer bi ba léegi fayuñu ko ndax ñun duñ jël suñu xaalis di ko dugal si loo xam ne déwén mën naa wax cent mille ngeen yokk luñ ci man yéen ñëpp da ngeen a manko bañ a fay donc fii kenn fayu fi si mois bi te tey le vingt waaw ah, voilà tey la vingt ngeen a jot këyitu amande bi ngeen daan faral di jot wala joxoon nañu ko ay jamono mais jëluñu ko. bi fa kenn joxu leen. joxu leen dañaa toog di leen déglu ñoom ba xam ñoom lan la def ak ñoom lan mooy seen xalaat. bis bu nga fajal seen bopp à à votre manière pour xaw am solution dina am balaa ngeen di teg yeneen jéeg. voilà ñu toog ñoom di leen xaar ba xam ñoom lan lañ décider ak ñoom lan lañ soxla ak ñoom lan lañ bëgg. ñaata ngeen doon fay avant. Euh, ñu ngi doon fay trente mille. waaw léegi ñoom ñu bëgg a ñëw yokk vingt mille francs après cinquante mille bu déwénee bu ne soixante mille doo ko bañ ci li ni jaru ko sa client tey bu ñëwoon fan lay tok kon ñun war nañ mëna mën ñu am leneen lo xamanteni mo gal li nan ndax nit ku lu nga bëgg ak lu nga gëm ci leneen la war mëna jappalé mais fo ñëw fekk nit lu mu bëgg ak lu mu gëm jappalé woko ci est-ce que yow tay tay tay mom mom dana mëna avancer wala dana mëna xalaat sax dem eh, nan man war na mëna créer ben affaire wala mëna def leneen ak leneen daw ñu nag nee liggéey de jappalé leen amul mais ndaw ñak ñoo bëgg liggéey di xey di yew 7 h du matin di ñëw tok sa atelier toog ba 22h 23h nga wàcc dem ñibbi te waaw ba pare yow ba pare yow ba pare yow di waaw client client ñemee ko fi indi yow fii ku fi indi client lu guddi guddi tey boo waroon libéré ñëw tey da ngay dem jël cek-cek wala nga jël euh, kii nu mu tuddati ale euh, oto yi nii dugg si dajji daj ba bëgg a dee amul sax dooru ba war. gis naa loolu aussi parce que am na si ñi ma ci xam ñoo xamante ne bu ñu wàccee. Euh, wala sax si journée bu ñu paree ñoom ñoo dem livrer seen bopp clients yi seen fii nii tey ban client nga koo fi indi client fan lay toog waa ban client nga fi indi fii nii ba pare centre bi xoolal toj fii nii bale mi baaxul pompe yi sax normalu ah. waaw. ne. borom centre bi moom suñu papa ju baax la parce que tamit bu bonoon du nangu ay ndaw nekk fii di fay 30 000 dañuy waxante dëgg. parce que biir Dakar place 30 bi yomb fi on se dit la vérité bu demee ba. centre commercial la wax centre commercial dafay am tuuti social pour aider les jeunes. waaw d' accord parce que aider les moom moom mi ngi ci moom mi ngi ci wax dëgg fa yàlla nit da koy waxal jukkoom parce que ñun bi ñuy dugg fii ci centre bii nii centre bi mooy loolu yaa ngi dégg mais bu yàlla demee def sutura tey ji ba ñëpp gis centre bi bëgg centre bi loolu dañ ciy sant yàlla parce que grâce à mais des fois benn erreur mooy am terre dañuy ñëw. fekk fu dara nekkul ñu ne fa dugg fa bu ñu ñëwé liggéey liggéey liggéey ba centre ba commencé dox borom centre bëgg a génne téer yi te téer yi ñoko jëmbat té téer bayré la andal faté la la fal la fal la lay folé day yoon loolu moy problème bi loolu moy problème réro amul ñaak waxtaan la bu ma soyoon ñu waxtaan suñu biir zéro ko parce que mom nit ku baax la mom amul benn problème man tok naa mom plus de 4 fois gisuma tay jii ni yenn détail ñu accès ak mom yaay ngi dégg ñaar nak amna nit ki mëno dëkk ci li la neex am li la neex parce que yàlla mayewul noonu yaa ngi dégg lenn nag mën na nekk bu ñu toogee waxtaan doon juboo cadre ñëw bi metti na parce que boo waxee dëgg rek mënoo cee am tey jii nii li nga ciy def sutura nga ciy demee waaw liggéey yi ngay gis Sénégal fi yëpp lu ci ëpp sutura ngay demee yaa ngi dégg yàlla nag moo yor wërsëg kenn ku si nekk fa nga war a jaar ak la nga war a am dañ ko koy nangul ñun lu ñu am ñoo xam ne lii lañ war a am ci ñëw mais lii nii tey jii nii la rek loo nekk nii tey lu mënta ñàkk ci yow la parce que mënoo toog di yelwaani wala ngay sàcc wala ngay fene ji te mën nañ ko am nañ kàttan di xale lañ mais duñ ko def parce que ñun ñi ngay gis ku si nekk responsabilité waaw tey jii nag àdduna mooy nak noonu nag bu ma état bi tamit mu gën a gëstu tailleur yi yaa ngi dégg xam importance su tailleur gën leen dimbali jéem créer surtout régime bu bees bii ñëw ni ñu jéem xam tailleur yi lan seen mu jéem ñu ciy dimbali di ko parce que loolu bu amul rek erreur day am te ñi ngay gis fii xale yëpp a seen carte dañuy woote lépp la ñuy def tey jii te bu leen neexoon tey ji kii nga xam ne moom sant seen papa la tey jii fa mu ànd ñu ànd fa wooteel ko ci élection yi mais dañoo dem wooteel ñeneen ñi yaa ngi dégg kon loolu yëpp dafa mat a bàyyi xel yaa ngi dégg àdduna nag mooy doxee noonu li nga ma laaj nag yomb naa lijjanti ñëw bi nu muy demee ba xam ne liggéey téyeer du pour événement kese téyeer boo gis barke arxuraan da ngay gis téer bu liggéey ba événement passé 1500 francs du ko yor poosam. nu muy demee noonu ak ni ngeen engagé tuuti. ñaw yi. parce da ngeen engagé ba doo leen livré ñaw jàmbur yi. yow nag laaj nga ma question parce que lenn moo nekk ñaw bu ñu yokkee wëñ yi yokk courant bi yaa ngi dégg. wëñ bi yokk. ñu yokkee wëñ yi yokku courant bi yokku renfort yi yokk lépp loo xam da nga koy soxla ci tisi bi nga war a ñaw tey jii nii. yow téer bi la nga daan jëlee ñëw lan lay fay loo ci am lan nga ci am te téer yi mënuñoo toog di ko jàmbat fenn parce que amuñu benn mouvement bu am doole boo xam ne mën na leen dimbali ci loolu. parce que yéen mënoo leen ko defar seen parce que boo leen gisee euh, ak secteur bu mënti doon da ngeen di regroupé wu di xàccandoo di dóorandoo. xam nga keroog Sonko dafa wax benn wax bu am solo te nit ñi bàyyiwuñu ci xel dani ñun Sénégal lu si bëri dañ koy importé ceeb beeg dulum beeg lépp dañ koy importé indi ku ñu ku nga xam da ngay dem di importé di indi munoo yow di wax damay wàññi ak damay yokk ñun wëññi yi ñeeg yëpp dañ koy importer nekkul ñun ñoo koy defar léegi tey ji nii état bii ñëw ni régime bii ñëw ni bu ñu dimbalee ci loolu tey ji bañ ko mën di ko defaral suñu bopp coow du am lu ci nekk tey ji ku ci liggéey di nga am loo ciy gagné mais loolu mënagul la ne da ngay nangu li la suñu borom teg période bii mais Sénégal ku la wax dëgg rek ah du ma ni bon na du ma ni neexul parce que nit boo xëyee am benn kuddu ceeb boo lekk rek sant suñu borom waaw mais mën na gën a tane mën a gën a tane kilifa yi nga xam ne tey jii nag ñëw jiita dëkk bi nekk fii ba ci bu kilifa yi nga xam ne ñoo yor centre yi ñoom ñëpp ñu xool xale yi xool ndaw yi parce que barki Serigne Saliou nit ñi dañuy dund yu métti yoo xam ni mënuñoo toog di ko wax mais boo leen tegee ba ñi 24 heures ñi ngi dawal ñi ngi lii fekk or ni yi ñuy ñaw sax demul fenn mais bañ a xëy toog moo indi la xale yu bari fii noonu lay demee ci ñoom da ngay gis koo xam day dem jënd ay tise yu bëri ñëw toog fii. di ko ñaw nee na da koy jaay xamul kañ la koy jaay. da wane rek. waaw kañ la koy jaay ñun ñooy obligé di leen jàppale des ñu ñun sama classe ñooy dew jënd ko rek a ko fii beneen su nga yónnee ko def am na yoo xam ne da nga koy maye. waaw léegi nag tey jii ne boo xamul loolu situation bi tey dun boo sa xamul loolu mënoo leen jàppale waaw nit boo ko jegewul doo ko xam waaw bëgg nañ daal kilifa yi ñu gën ñu jege gën a waxtaan ñu gën a xam ñu lan lañ bëgg. dinañ si def jéego dinañ dem waxtaan ak kilifa gi bu kii moom fii pour mu jëm seeti. waaw loolu yëpp daal mën na ne moom nag wax dëgg nit ku baax la barki Serigne Saliou miinu ma ko man cantaakoon laa du ma fenn bu ma woonoon leneen dama koy wax sama yoon nekku si man sëñ Béthio rek laa gëm mais nit ku baax la amul problème xëy na peut-être entreprenariat moom ak réeróo la mais gëm naa ne buñ toogee li jeex waaw moom nit ku baax la waaw loolu laa am lu may wax ñu ngi di leen jaajëfal di leen ñaanal seen site bi yàlla yokk ko defal leen ndam lépp loo xam ne yootu ngeen ko ci di ñaan ci barkeb Serigne Saliou ngeen am ko yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla merci beaucoup. voilà comme ni ngeen ko gisee ginnaaw ba ñu euh, euh, demee si euh, Seck nga dégg Momar li mu wax yëpp si wàllum jafe-jafe marché bi et ak préparation tabaski wëññi ñu yokk ak disposition yi ñuy liggéeyee. yooyu yëpp mu daal di koy càmbar wax ko rek tënku ko ñu ñëwaat fekkaat fi beneen keneen ku nga xamante ne mën naa ne aussi bokk na si ñu fiy liggéey di fi daan dooleem sëñ bi ñu lay nuyu. waaye ñu ngi leen di nuyu di leen jaar. naka la. Mbaye Diouf. Mbaye Diouf Diouf ñaxa baay. waa gis nga. daa mel ni sa sa sama jaam nga. non man maay sa buur. <laughs> jaajëf ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñu ñëw tey fii si sant euh, commercial El Malick ngir waxtaan ak yéen si jafe-jafe yi ngeen dund waaye si wàccaay tabaski bi. parce que gis nañ tabaski na riir bu muy am ren ñu ngi nii euh, ak régime bu bees bu mu tombé ñu am fi deux mois ñoom vingt jours a des ci tabaski daan na gën a euh, am dugg ak génn par rapport ak ren tey jii ban ban ban jàngat nga am ci situation tabaski 2024 bon jàngat bi mooy mooy comme li nga wax rek ndax ñun ñëpp gisundoon nañu li xew ci réew bi tamit xaw ma crise lañ ko mën a tudde xaw ma doxul daal depuis covid 19 ba léegi nii la dëkk bi doxe quoi daa ralentir bu baax a baax tous les événements yi fi jaar yëpp noonu la demee dinañ sant nag mais comme li nga wax rek daana gën a métti daana gën a xumb daana gën a neex daal mais nag xam nga tamit doomu aadama moom lépp looy fekkee ci bakkan rek di ko nettali rek sant yàlla quoi mais nag wax dëgg fi yàlla moom daana gën a xumb ñaw yi daana gën a occupé daana gën a lii daal mais dëkk bi tamit métti na métti goo xamante ne tabaski dafa métti ci chargé yi ci borom kër yi tey instant bi ñaw yi bëri ñëw na ñëwagul yaa ngi jëm moins de vingt jour fin de mois dégg naa le 17 xaw ma mooy tabaski tey ñaaw yi tamit day jékki-jékki ñëwandoo ndax instant bi ñu bëri amaguñu xaalis pour xotti wala pour yóbbu seen ñaaw yëpp daal am na ñoom dañ lay woo téléphone na laa bàyyil ma place mais am na yëpp ay problème la suba dañuy jékki-jékki ñëpp ñëwandoo doo mën a ñaw lépp coow li yi parce que instant yi ñu bëri il faut il weer bi dee ñu mën a jënd tissu doo ko ñu yi. loolu day xat si yéen moo tax parfois ñenn ñi duñu mën a jot seen ñaw à temps. day xat day xat trop parce que ay 17 jours ay 10 jours mënoo si ñaw dara ndax ñaw léegi kenn ku ne xam na ne gaawul metti na surtout ñaw jigéen. création yu yi la ay renfort ak ay seen fil yooyu gis nga parce que soxna yi dañuy dugg TikTok rek xoolu leen neex indil la ko mën na ki dara benn yére da ngay xëy benn yére ngay ñaw wala ñaari yére renfort collé comme ni la ko Seck Baye Fall waxee rek affaire yi metti na courant bi cher na gis nga borom marché bi lii ñu lay déclaré léegi. jekki jékki ne ay cantine xam nga ne lii tey nga ne cinquante mille ay soixante mille. deux sur trois la deux sur quatre. lii matul sax parce que ay un mètre ay quatre vingt dix am na cantine yoo xam ne ay ne euh, a waroon a fay euh, te trente mille la ba mu ne da ngeen koy yokku mais yeen ñep da ngeen am manko fayul fayo len tok pour rek jema wax ak mom mu meuna régler parce que bo len fay au delà de 15 da len amende ngeen fayat lu upp le ngeen warona fay buñ de xamul mu don def xam nga koy fay 30000 ngay tej cantingam bu fayul nga yokol ko 40000 ñu diet way mu yokat 50000 te neena legi 50000 yoy ku ko fayul moy de la 15 da lay indil kayit ise bo xamne da ngay fayat 15000 wala 20000 wala wala trente mille ci ni mu ko waxee moom. mooy amande rek bi. xam nga kon loolu metti na ki nga xam ne nag mooy Mamour Cissé mooy borom marché bi homme de politicien bu mag la kon donc tey war naa mën a yërëm xale yi war naa mën a yërëm ndaw ñi ndax tey bu nu ko joxoon réew mi tey kon war naa mën a wàññi Sénégal loolu mooy problème bi dañuy wax loo xam ne ni duñ ko def wala yërëmuñu taq ñii nga xam ne dañuy daan seen doole di taqali nag ay ndaw ñun yaakaar naa ay xale lañ rek jàng suñu métier demuñu gaal demuñu si mbënd mi demuñu fenn sàcc ñu fennuñu agressé wuñu sa daw defuñu leneen kon nag boo gisee dëkk bi tey jagataamaan yi bëri bëri fii ñàkk métier la xale yi doon jàng métier yëpp léegi bàyyi nañ dem dawli jagata parce que métti na dëkk bi doxul tey boo xoolee xale boo ci gis yoon na soxna yoon na famille yoon na njaboot tey boo ko bëggee tey di ko jàngalee métier di ko jox ay nangam-nangam du ko arrangé kon moom mi nga xam ne mooy kilifa gi nañu yërëm ñun yàgg marché bi yàgg nañ fi trop man marché bi mën naa ne bokk naa ci doyen yi fi njëkk a nekk ba dara dul dara ba ma fiy nekk ñii ñëpp nekkuñu fi. def ay jéego ngir waxtaan ak dañuy waxtaan ak moom ba son gars yi dañu fay dem sax d'ailleurs des fois mu ne du recevoir kenn wax na li muy wax pare na ji te kilifa boo jiita ay xale jiita bu ñu defoon comme ay doomam du waxee noonu ñun ay xale lañu rek dañuy. tey le 19 est-ce bu yéexee seen euh, jéego yi ngeen bëgg a teg pour ne pas alles au fond des choses jéego yi ngeen bëgg a teg ngir régler solution est-ce bu mënul leen andil gàllankoor yéen surtout si tabaski lañ jëm est-ce que jotul ngeen lijjanti li coûte que coûte euh, par les moyens yi nga xamante ne moom ngeen jàpp ne boo leen ko tegee dina dina dina so waaw parce que loolu lañ doon waxtaan barki dem tey suba rek waxtaan nee naa leen il faut ñu lijjanti ko ndax bu ñu ko lijjantul comme li wax ni mën na ci feeñ parce que mi ngi toog ñun ñu ngi toog xamuñu si li mu nekk xamul ñu tamit si li ñu nekk parce que tamit yokk gi metti na ñu bëri commencé nañu sax dox dèjà mais nag ñëpp mënaguñu amandoo magasin mais lii moom jëmul kër fayuñu de ndax lim ñu teg charge yi metti na boo ko nangoo tamit bu tabaski bi jàllee yow xam nga day méttiwaat kon lépp luñ ciy def moom na ubbi xelam ubbi bëtam xam ne ay doom moo fi nekk bu ñu defoon comme ay doomam kon du demee nii ndax lii dafa am lu fu ñu war nekkul kanting bii kese kese kese rek moo ñu war dina yor suñuy yaay yor suñuy soxna ca dëkk ba yor suñuy doom di daan suñu doole fii di def fii di def fële kon moom na def loolu xelam xam ne ñun ay xale lañ dañuy liggéey defuñu fi lu bon nag waxuñu fi lu ñaaw ñun ñëpp dañoo mànkoo doon benn bokku ndey bokk bàyyi tey boo ñu fekkoon fii benn kaasu café ñun waa El Malick yëpp mën ko kon donc na dawal yërmande rek na dawal yërmande bu baax a baax a baax a baax mais événement bi moom ah ñu ngi daal mi ngi relantil daal. am nga xar. non ñu ngi am yaakaar. xar bu xar bu toll nii yow de laa bëgg. non am naa dina am parce yàlla moom comme yàlla moom buur bu baax la quoi du seetaan jàmm xale moom borom kër gu ñuul ñàkkul dara te saa bu nu xëyee tamit ñu ngi ci nii la ñuy def ba son dem ñibbi bu nu xëyee tamit nekkaat ci rek kon donc tey ku ñuy jàppale loolu la ñuy jàppalee di ñaanal nag ki nga xam ne tey nee nañu mooy président muy joomaay yàlla defal ko feex yàlla may ko fon bu gudd gànd ak wér ndax réussir am mooy suñu réussir bu doxul ñun duñu dox te dëkk bi yow gis nga fi xam góor ñëpp dem nañ si mbëkk mi ñii dee nañ ci géej gi ñii ngi micro couloir kenn xamul kon ñun bu ñu amee jom des fi di am yaakaar nañ ñu jàppale nañ ñu jàppale parce que tey ñun ñëpp ku ne am nga tey loo demee ci gaal gi 300000 wala 200000 tawuñu mais nag ñëpp mënuñoo dem kon ñi fi des nañ ñu dimbali te jàpp lañu ñu liggéey daa tey tailleur kenn waru ko fontoo kenn mënul dem sans ku fi génn doo def yaramu neen da ngay sol yére courant baa ngi ni tey loo jënd balaa nangam-nangam mu jeex seer na daal kon ñu ngi ñaanal président moom it mu yàlla defal ko jàmm yéen bi oyof ci boppam ba lépp lu mu yéene Sénégal moo ki mu ànd muy premier ministre Sonko yàlla defal ñu ko ñun bañuñu kenn ku fi nekk na dox rek. Macky Sall Diomaye Sonko Ousmane Tanor Dieng ñëpp na ñëpp gis seen bopp rek xeex bi xeex bi bëgg lu baax la rek mais du mbon du taxawaadu du yàq Sénégal parce que ñu mënuñu yàq réew mi ku ko bëgg yàq da nga fiy jóge kon yàlla na yàlla defal jàmm di ñaanal tamit suñu kilifa diine sëñ Mountakha yàlla may ko fon bu gudd gànd ak wér may waaj nag magal gu rëy muy magal ak Daaru Salaam maam Seex Anta borom Daaru Salaam mooy sama sëriñ mooy sama wasila di ci invité ñëpp. loolu kañ la. le 28 bii di ñëw Daaru Salaam incha allah ci la ñuy def magal ak maam Seex Anta. borom daaru salaam kon maa ngi invité jullit yëpp jaami yàlla yëpp ñu ngi leen ñu dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm waaw. waaw mais la mais nag loolu ñun dañ ko programmé ci kàttanu yàlla. sëñ bi ñu ngi waaw ñu ngi lay ziar. naka la. voilà ñu ngi fii si ak Adama Keita ba tey ñuy waxtaane wàllu tabaski ak jafe-jafe yi nga xamante ne yéen koy am suy événement bi rawatina fii si centre bi yow tey ban euh, jàngat ngay ngay def si seen condition de travail. Euh, si si suñu condition de travail boo xoolee gis nga bu baax comme fii tàngaay bi boo xoolee suñu ventilo yi sax bu tax sax ñu mu mën a am ngelaw normal en fait gisoo ak espace bi mu xatee da ngay am client doo am foo ko teg te boo xoolee yenn client yu baax yi soo ko amee bu ñëwee fii bu xoolee maanaam sa liggéey dina rafet. dina ci kontaan mais bu ñëwee fi ngay liggéey bu ko xoolee rek day découragé. dañ lay xeeb merci yow xam nga nu demee dañ lay xeeb dañuy jàkkaar yi yow seen liggéey amul valeur. jigéen dañoo baadoo la de. nga surtout ñun ñoo baadoo la. <laughs> góor ñi ay dañoo bëri tiital bëri ciib ciib. même ba ci góor ñi sax am na góor ñoo xam bu ñu ñëwee maanaam mun nga ñawul nit ñu gis ñaw bi ñaw bi neex leen lool mais du tere ni bu ñëwee sa place dañuy découragé te terewu ni fu ñuy demee at atelier mag yi yow li ngay ñaw mun na leen mun na ko dàq mais ñoo ñoo lay ëpp privilège quoi. te loolu loolu la am na si ñoo xamante ne nañ yéen ñii di toog si ab pukus yu ndaw yéenay ñawal borom place yu mag loolu dëgg la. waaw ah, bëri na ci moom bëri na ci moom mais xam nga xam nga boo gisee yii normalement lii di yoon si centre commercial xam nga centre commercial normalement war na am espace ba waaw. El Malick ak tur bi nu mu yàggee ñu bëri xam nañ fii mais ñu bëri xamuñ yi conditions yi la ñuy dundee parce que mosuñoo yëg si biir centre bi moo tax day war da gis tailleur bëri du ñu bëgg seen client ñëw fii. dañuy bugg bu client bi yenn client yu baax yi bu ñu amee yenn client yu baax yi ñoom ñu préféré déplacer dem foofu livrer ko parce que yenn client bu ñu ñëwee fii xam ne fii ngeen liggéey wax dëgg yàlla dañuy découragé parce que yii moom xam wóolu nit ki jox ko sa magasin mu teg ko fii ñu ñuy romb gauche droite xam neexul ci xol moom benn ko côté xam nga loolu dem loolu yëpp da nga koy nangul client bi même bu client bi découragé dem aussi da koy nangul parce que dëgg la fii xat na te bu ñëwee gis magasin bi ñi ñuy romb gauche moo koy ñaw aussi y' a problème aussi quoi. seen problème euh, euh, ak euh, ki nga xamante ne moom mooy borom centre commercial bi tey jii yow loolu ban ban ban solution nga si bëgg wala ñan nga siy woo. non man man woo naa si ñëpp woo naa si état bi bu ñu si mënee jàppale ñu jàppale ñu si parce que instant yii nii xoolal condition bi ñuy dundee nii fi place bu ndaw bi instant yi borom centre bi mu ngi ñuy imposer pour yokk place yi. mooy cinquante mille. cinquante mille te yow fii. yéen kii da leen a yab. man fii déggoo ma. maa kii da leen a yeb de. xoolal yàlla xam ne ne xëy na maa koy wax sama gars yi fii bëri ñuy reetaan ma leen man keroog ba may sangu sama duus kër ba ma ëbbee sama sens bi di sangu damaa jékki-jékki sama xel ma nattu duus bi natt sama place bi ma ne sama duus kër moom place bi ma ne man xoolal xoolal lool ak fii ma ne loolu du ma ko fay fii parce que fii yow fii cinquante mille francs jaru ko wax dëgg yàlla fi jaru suñu mënoon am état bu ñu mënoon jàppale si lool ñëw xool fii condition yi wala mu yoni wa impôt domaine sax ñu ñëw xol fi vérifier centre ni muy démé dina ci bax lool aussi ñu jappalé ñu ci quoi ah, voilà comme ko gisee ami fidèle de Public SN li moo nekkoon li nga xamante ne moom mooy reportage si waajal tabaski bi si euh, ak jafe-jafe yi nga xamante ne waa centre commercial El Mal ñu ngi koy dund fii ak ki nga xamante ne Mamour Cissé nga xamante ne ñoom nag jafe-jafe ñu ci am mooy wàllum yokkum euh, place yi nga xamante ne benn machine rek moo fa xaj benn nit dafa xaj mu amuñu sax espace bu ñu accueillir seeni client chaque fois ñuy yokk ba pare teg si ay amende yoo xamante ne de delà de 15 boo fay dañ ko siy dool si li nga war a fay mu mbir moo xamante ne ñoom dañoo bañ ba banque banque seeni yoxoo ne dootuñ duñu fay mois bi ba tànk wu ñu lu ni mel ndax bis bu ñu toogee ñu yokk tey yokk suba yokk ginnaaw suba dootuñu amati euh, li nga xamante ne moom mooy lu ñu fayee te dootuñu génnati si ñaaw bi tant que jamono dafa metti lii nag moom gëmul comme ñoom niñ ko waxee moo fi xew donc lépp li nga xamante ne dinañ ko teg comme jéego ngir euh, xeex lu ni mel et que ñoom ñu ngi si euh, woo autorité yëpp ngir ñu jàppale ndax ay jeunes yu jàmbaare ñoo fi nekk donc ñu ngi leen di xaar ñoom ñëpp ñu ñëw takk seen sër takk seen tuba jàppale xale yi nga xamante ñoom ñoo nekk fii si centre commercial bu El Malick ngir ñu mën a euh, euh, mën a woyal seen liggéey nu mu war rawatina si tabaski bi nga xamante ne moom la ñuy waaj te lu mat euh, ñaar fukki fan rek moo si des daanaka donc na mbokk yi lii moo nekkoon li nga xamante ne moom la leen indiloon si Public SN di leen wax ngeen woy di partager ak abonné waaye woy leen di topp suñu programme fii si Public SN jërë ngeen